بعد الهزبلة وبعد البسملة وبعد الهمدلة وبعد الهوقلة أنت اللطيف الذي قد قلت لي أبدا لطفا عجيبا يزيد الفكرة يا الله أنت الخبير الذي عينت قبرته xam ندني موت لي رك ndax bii rek bi am li ma ko waxee Seydi Ahmed léegi rek ni ko ndox mi ci la ñu war a gën a man a génne ngir woon góor bi suba wa taala ni ko nangu nañu ab dogalam te moo tànn ay malaakaam kenn ku nekk ak lam lay liggéeyloo Mikaayil mu jox ko ndox mi gis nañ buntu kër bi ni mu feese moo ne tali bi moom taawu ndax fi dafa xóot waaye nun nanu ko traduire nañu ko interpréter ni ku tedd ki moo nuy waaj a jox ay xéewal te yow defe naa ni xéewal li nu ku tedd ki jox ku la ca dëgg ni la mas ba nga bëggee amee amal journée sargal Macky ma ne la xaaral dangaa xaar ndekete woo tey lay doon mhm. muy yow mal ju moo atti mhm. ma wax li ma wax bay doo fële ca biti mhm. deug la ci bis yëpp lu ko yàlla defal li mu def ndax bis bu nekk am na secret secret bis yëpp la dajal alquranul karim ji ñuy wax ba muy tukki newoon na sirru bi daf koo jël ak sirru bi nga xam ni mooy làmmiñu yaaram mooy waxi yonent bi di alan arabia ñaari sirru yooyu te néewul kenn kat delloo na ko kon ku yàbbu fonk xasaay bi rocc na sirru alquran moo ko na sirru euh, langu arab waaye néewul néewul kenn delloo na ko ci bu ko ca delloo woon bu ko ca delloo woon kon waa Arabie Saoudite du ñu fi yable ci moom di ñaanlu bu ca delloo woon siru ba kenn daa ko leen jàng naar yi léegi nag nan loolu dafa laaj mbirum ku tedd ki dafa laaj ñuy settantal mm-hmm. jamono bu nekk loolu wax naa ca la ma cay wax fee wax naa itam kuréel bi nga xam ni kuréel yi ñu doon wax ak coalition du siècle ak yeneen ak yeneen ak yeneen déedéet bu ñu demee ba ca kanam yooyu yëpp dañ koy jël teg nee dal di indi mbooloom ku tedd ki mbooloom ku tedd ki lay moom ku bëgg a jëm fenn mbàgg bëgg sandata daareen di nga ca di nga ca bokk waaw loolu nag ca kanam la waaye dañuy ñëw ci actualité ak réew mi ak njiitu réew mi ak ñi mu seqal réew mi ñi politique ak ñi dul politique ñi nekk ay responsable fu ñu ko mën a doone ci religieux yi ak ci temporel bi fu ñu ko mën a doone rek li ñuy wax dañoo bëgg ñëpp dégg ko sunu ngëm-ngëm la ñuy wax sunu xalaat la ñuy wax am ci lu yi moom en tant que xarit en tant que collaborateur en tant que président de la république am lu ci réew mi moom am lu ci citoyens yi moom am ci lu ci responsable yi moom waaw ah, am ci ñi jébbalu lu ñu moom ñi di tudde ay murit ñi jébbaluwul itam am lu ñu ci moom waaye nag ñu xam ne rek ku tedd ki moom rassembleur la waaw moo tax réew mi ñëpp ci yam fi mu toll balaa yàgg insha allah dinaa dem ci église bi waaw li ma ciy jublu mooy jàngale wane ne ay citoyen lañu ay citoyen sénégalais nekk ay chrétien di dund yonent yàlla Iisaa te ku tedd ki jàngal ñu fausse bi zarfil xasanaat ci Iisaa ak yaay ja dëgg la ñu ngi wax ay élection muy jub si diggante comportement ak attitude ak façon de parler ci diggante saytu ak moytu ñëpp la concerné muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw saytu ak moytu dafa baat bi ñuy wax alxayri am baat biñu wax ashar. al alxayru wa shar ñepp ay jambar lañ makki mom kenn du wérante ni jambar ànd ak itam ay jëb ñi japp ci réew mi te fété ca makki ñepp ay jambar lañ ñi ngi def luñu man ñi féete feneen itam ay jambar lañu ndax ñi ngi def luñu man waye mu des seetantal jambar gi fan la wara jëm parce que jambar buñu koy wax ashu jaamu buñu wax jambar nekk jàmbaar ci lu baax aw yiw alxayr boo ko xoolee juróomi lettre mooy symboliser salawaatul xams hmm? waaye nekk jàmbaar ci achar mooy kiy wax lu ñaaw di ko def ba noppi di ko digle kooku ak njàmbaaram dafa négatif soxla wuñ njàmbaar gu positive positive la ñu soxla léegi nag ñuy wax ay intixabaat ay élection ñu ngi ci jëpp bu dee man maag sama njaboot ak samay soppe kenn du werante ni mag yi lañu bëgg a joxaat te moo gën ci réew mi moom lañ bëgg a joxaat majorité bi ngir mu réalise ay rêve am moom ñi mu wóolu tànn leen ñu ànd ak moom ci liggéeyul réew te nañu ko yéene bu réew mi développé tàmbalee ci moom nañ ko ko yéene nekkul ci dama bëgg a doon léeg na fi jóge bu mu fi jógee du yooyu senegal la ñu wax adduna la wax développement la ñu wax référé wu ci joxoñu ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul qui est le sauveur de l'humanité loolu la ñu wax du caagee na ku jóg rek nag daal di doon chef d'état te nekk tey dama bëgg ñu delloo si xel yi démocratie bi wax nañu ko mu jóge ci tubaab yi ku nekk ak na nga koy doxalee ak yëpp waaye gis nañ fi réew yoo xamante ne bii ña ko jiite def nañ fa lopp 40 ans ñi ci am chance développé nañ ñi ci amul chance développé guñ du dëgg léegi nag man waxuma ay troisième ak quatrième li ma bëgg man li ma bëgg te gëm ni moo gën ci réew mi mooy ñu joxaat ko majorité bi majorité bi mu amoon bu ci dara wàññee ko ku ko mënta yokk bu ko jéem a wàññi bu ko defee mu changer constitution bi bu ko changer constitution bi man laa wax li ma yaakaar ni moo gën ci réew mi néew ma na fi def la fi Abdou Diouf defoon de mbaa la fi Senghor defoon ku nekk vingt ans waxuma loolu de man damay wax fi situation politique réew mi toll ak Afrique ak adduna bi xam nga kon man tëb na xam nga man troisième mandat kon yi ñu wax romb naa ko waaw ndax man bu ma señoon après day changer constitution bi def ko de façon man fee nekkaat ba ca kanam waaw changer constitution bi moo xam ne nu ma koy changer <laughs> nu ko yoon di maye waaye man daal jàpp naa ne moom moo gën ci réew mi ba ca kanam man loolu la gëm. léegi nag ku defe ni wëndeeloo ko wax ak di dugal yeneen ci boppi xale yi waaw dugal ci wépp yooyu munta déedéet réew mi réewum Serigne Touba la ba muy soog a jóg daf ne xadda anqanil yow ma hubbul ahli wal watan an darki ma li zawil anwaari wal fitan ba jot ci kun fa yakunu bi bam sa chin min rabbil habibi ilal abdil mahbubi kataba rabbilahu anniya muhib li zikrihi wallahu kulliya yuhib fa la waxe mardil yàlla xaqul mu binul xaqa wa bil xeerul ulama araqa jamono bu nekk ma koy waxtaan ak yéen fii réew mi jékki jékki dafa defe ne rek Macky def fii dal di jóge ndax ci ay coow ak ay ñàkk fayda déedéet <laughs> du demee noonu de damay bañ ngeen di rêver loo xam ne bokkut ak li malaayika yi def te man oh man ki ma gis ci suba ki ma gis ci suba du ko tuuti du ma ko wax nag dama koy codé <laughs> waaye boo ko doon dugal fen foo xamante ni bii fa nga koy boole dañuy minoritaire waaye ñoo nekk ca kaw li kaw li kaw li kaw <laughs> te kooku duma ko wax ab journaliste mënut a laaj ba ma wax ko ko <laughs> waaye Macky na sa xel dal xaw ma foo ne xaw ma yaa ngi may gis xaw ma gisoo ma na sa xel dal yaa sa sonn ak sa njaboot ak say collaborateur man nous juste on est avec vous te itam oh, oh. samay wax ak a jara moytu jógee goo fi léegi man Modou Mbacké maa ko xam nga lu tax mu ne Modou Mbacké Serigne Ousmane moom la ma daan wooye ndaayan sama turandoo moom la ma daan wooye Modou miim waaw daal la miim waaw daal miim 40 waaw 6 daal 4 muy ñaata 40 moins moom lañ doon wax numéro 4 fële numéro 4 la ko tubaab yi doon wooye ca ndar mm. ma tax chiffre 4 ñor ma mm. ni ma chiffre 7 ñore ak chiffre cinq di alxayri gis ngeen mim réew wallaahi xale yi tey leen bu dee na xale yi jàng moom bu leen kenn dugal ci seen bopp lu dul lum njàng te ngeen gëstu kun kaatiman li durri wal buusa tanal xasdan wa taaduwul ji la yaa mu taxaldim ngeen gëstu ko bu leen référé wu ci keneen ku tedd ki moo am adduna am alaxira mooy malaas mooy mafsa leneen lu leen waay wax ngir boppam wala pouvoir wala lu mën a doon déedéet réew mi moom kenn képp rek dong ak ñi mu ko àndal ku tedd ki ca kanam ñi ci des ca sàppe sa mu leer nañ kilifa yi bari nañ fi suyuux yi bari nañ fi mu koy jàngale ak wàll yuy ni leen war a respecté ak ni ñu leen war a joxee seen gëdd gi ñu moom gi leen yàlla jox te di ko wax na ko waaye moom moo nekk ca kanam jutta bi mu faradin la naa faaxal jumal xutta la naa mox jëla jëy sin wa amal donc bokk boole ci benn rang il a ma dellu si ci sama waa ji parce que deux heures de temps laa ko wutaloon fële mais kaay ne ma ah jaru ko ndax li nga bëgg ci moom ay am moo tax mu wane li mu wane bi gënuma fee xóot buntu kër mais maa fee ëppalem ndox wasalaam